donc gis ngeen lii moo xew fi nga xamante ne moo di gis ngeen ba tey ñu ngi nii Pikine fi nga xamante ne yomb leen fa katt ndeyam yomb xam nga lii dafa ñaaw xam nga ñu ñoo rey doomu jàmbur ah nit ñi seen seen dëkk ñu ñëw fi di saan ay rakkeen boo xam nga te ñoom ñoo rey booy bi lii dafa ñaaw police yi lii rek naka président de la république Bassirou Diomaye Faye rek ci yaakaar na rek la problème bi waaw police ko topp rey ko teg na ko rey ba pare ñëw fii ñu jaar ñu jaar suñu doom ñu yi di sol donc mu ngi noonu soxna si yow sa yow la sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay mooy sama ñeenteel tofa teg na pol lañ ko yóbbu ko ba mu dee ba pare ñëw fi di sànni ay دانيو نيبا في ستاند اي وون دغي اتا ناني ديمبالي تاي سارخ سي لا ني نيو دانيو ستال اي لا كرمازين ني دون واتي كامل ني دانيو دم دينكاني كين مون في واخ كين مون واخ ندخ بوليس بوبلان بوليس بيكي سون ناني sonn nañu kenn mënatu la génn ndax ñoom. mu ngi noonu gis ngeen gis ngeen li nga xamante ne moo xew fii euh, xaaral ma jël Baye Fall Baye Fall li xew doy na waar. li xew doy na waar torop barki maam Sara Fall sama rakk rey man la dañ may rey ba ma reyee loolu rek mooy am billaay walaay si jeexu rek mun taxaa aari jàll kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo mu nekk loo xamante ne démb ak tey ñu ngi koy euh, gis fële ca pikin mu nekk loo xamante ne dañ koy ñaawlu parce que aussi il faut ñuy waxtaan wax dëgg policier quel que soit alpha quel que soit li nit ki def dañ la ne jàppal nga yóbbu jàppal nga yóbbu mais pas di saaga pas di dóor dóor ba nit ki pour lan au détriment de quoi ak loolu fan la tege fan la loolu tege Mouhamed Diop dóor nañ ko ba rey ko léegi nag ñun ñëpp ay nit lañ ñun ñëpp am nañu xol ñun ñëpp am nañu xol lii dafa ñaaw ci suñu ay homme de tenue vous devez nous protéger yee ngeen ñoo war a protéger assurer suñu sécurité boo leen fekkoon nit ki di tux yàmbaa sax dara mayu leen ngeen koy dóor ba di ko rey si on vous respecte avant tout c'est votre tenue c'est tenue que vous portez parce que vous nga da ngay ci une de ces vieux qui dit que si ñu won seeni tenue ñu ak donc nañ tenue tenue donc vous devez respecter ñi nga xamantene dañ leen jox cër yow nga war a protéger nit ki di ko dur ba mu di lii day indi ben révolte day indi ben révolte boo xamante ne euh, da ngay xam fu muy commencé mais doo xam fu muy jeexee wallahi azim da ngay xam fu muy commencé mais doo xam fu muy jeexee rafetul c'est pas joli à voir rafetul baaxut dem nañ ba lakk fa biis lakk fa ay taksi lakk fa bis demal Dakar dem dikk bi ci ci lan parce que dañoo révolté wu mais bis bis Dakar dem dikk bi aussi lan la jote ak police jeunesse bi dañoo révolté wu ndax di ngeen rey ay ay ay seeni xarit seen xarit te ñoom ñëpp seede bu rafet lañ def ci moom ni ko deful dara donc il est temps qu'on arrête nañ arrêté homme de tenue ñun dañ leen respecté yéen da ngeen war a taxaw pour suñu sécurité te li yaakaar naa Diomaye fay bokk na ci dina bokk si ñi koy régler président Diomaye Polisi yi dañ ñoo war a aar pas du ñu maltraité pas du ñu xas pas du ñu saaga da ngay gis policier boo xamante ne day daje ak jeune bi mu yor ca kartaam mu laaj ko ko mu mu jaar fu ñaaw du loolu affaire bi du loolu saaga waru leen si ñun dóor waru leen si ñun ba waxuma la bay reye te nag ñu ngi xaar yoon def yoon def liggéeyam parce que nag ñoom dofuñu xam nañ bu baax mënu mënoo nekk homme de loi ba pare te munoo xam li yoon di tere ak li yoon di di di santaane donc xam nañ bu baax li xaw donc Pikine Sénégal àdduna wërlal ko mérité nañ lii ñu indi ci ay leeral ñu punir ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko def simbileen ba pare dem denc leen fi ñu leen war a denc parce que nag quoi qu'on puisse bu doon mandéeg bu doon tux yàmbaak bu doon sàcc nag mérité wu ñu koy dóor ba muy dee bu doon population bi sax waaw léeg-léeg nga jàpp sàcc ñëpp dóor ko mu jaare faatu wala d'accord mais homme de tenue homme de sécurité kon kay yeen kay nekato len pour suñ sécurité li leen neex ngeen di def bu ñaari nit bo bo len jappé kenn yeen ñaar ngeen sékko ko dur ko ba muy bëgg di kon ñun fuñ tenak té nak après dañuy révolté wu donc li il faut ñu indi ci lumière il faut ñu xam parce que wa Pikine nak wax dëgg fa yalla am nañ lu leen métti Sénégal am nañ lu leen parce que on ñun ñu ay homme de tenue di def li. wax dëgg fa yàlla